ñaan yàlla subhanahu wa taala ñi yor ay feebar ñëpp yàlla leen saafara yëkkati leen ñi yor soxla ñëpp yàlla na ko yàlla faj ñi caabi féete ginnaaw it yàlla na yàlla euh, leen ci ca may leen xelum ñu topp lan war a topp barki yonent bi salaa salaam barki alquran ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp mbokki julli boo dégloo ci suñu waxtaan ci numéro bi weesu ñi ngi doon wax ci walu asrar ci wax ni moom mooy li lambo lépp wax sirru yi jóge ci ndox yi jóge ci garab yi jóge ci xeer ak suuf ba wax yooyu yépp su àndee nag mooy nekk al asrar ko kon képp koo xam ni am na lu la yàlla dénk ci asrar da ngay nekk koo xam ne da ngay boole booleem soxlay doomu aadama yi nga dajale ko ngir jëm ko saafara Euh, loolu moo tax tey ñu ñu ñu wanaat nit ñi lu bees wan nit ñi hémorroïde moomu sonal la nit ñi lu sonal doomu aadama yi la waaye képp koo xam ne yëg ni ko ci boppam euh, yàgg na noo xam ni koy li koy def mooy biir buy balad ne wala nit koo xam ne dafay lekk ba pare euh, du gaaw a rees maanaam du dem wanag lu bari te nit normal nit mooy bis bu nekk mu dem wanag doonte benn yoon la wala ñaari yoon waaye nit war a toog trois jours du dem duus léeg-léeg nit ñëw wax la ko dangay ngay jaaxle ci yàlla ba tax na am nañ ci garab goo xam ne incha allah rabbi képp koo xam ne ñëw na fii ñu jokkoo jëflante su ko jëlee te nin ko waxee traitement yi mu respecté ko nin ko waxee su noppee yàlla mën na koo tàqaleeg hémorroïde incha allah rabbi ci kàttanu yàlla. maanaam euh, hémorroïde nag ñaari traitement am du weesu euh, ñetti semaine ñetti semaine. ñetti juroom ñaar 21 jours momoi moy traitement su fekke nit ki respecté nako ko sept jours yu ñëk yi mu jël ko ni mu waré jël siwaat jëlaat jëlaat rendez-vous bu jël siwaatee rendez-vous bala ñëwaat sax da ngay gis ni gis na ak tan ci bopam waye su fekke nit ki dafa jël si rendez-vous yon yoon rek tane comme ni Sénégalais yi def euh daal di wax ni rek man tané na yëgatuma lima doon yëg su ñëwaat su dara da koy bettaat su fe mu jugaat nak euh, di dem di gëna sonal boppam mo tax sa bo tambulé ben traitement rek li gën moy nga yeggalé ko euh, lu metti la nak ci doom aadama waye liñ koy traité tamit sérul dañ ci jappalé doom aadama rek ci yalla tax képp ku fi ñëw daal danañ ko jappalé inshallah rabbi ku wax émorite du ndoxum siti ndoxum siti mom dafa doy war mom bari na jigéen ñi ñàkk am doom ndoxum siti mo leen koy tek ndax lu ci ëpp buñ ëmbé seen bu ndox bu biir bi tangé rek mu tuuruwaat wala doom ji lak ci biir Euh, am na ñoo xam day dem ba seeni karaw sax day xus di wadd loolu am nañ ci sax benn shampoing boo xam ni day ànd ak diw bopp ngir nit ki bu bu demee ba karaw gi xusu noonu bu buñ koy joxee mu koy jëfandikoo euh, garab gi ñu ci joxe dañ koy joxaale shampoing bi mu di ko raxase bopp bi di ci diw diw bopp bi su ko defee karaw googu dafay dellusiwaat am ñoom seen tànk mooy xar ba danga ci mën a dugal sa baaraam ñaare léeg-léeg waaye loolu lépp lu ci mën doon daal ak kii wakkatu ba muy dagg euh, loolu lépp bu dikkee daal danañ ko jox traitement boo xam boo ko respecté moom tamit 21 jours yi yàlla mën na cee dogal ci kattanam ndax nag it nit moom li man rek mooy dajale yi yàlla wax ni mën naa faj yi xalaat bam nit yii mën naa faj boo ko dajalee ba noppi nag tawasul ci sa borom def say taxsinaat ak say ñaan yi nga ciy ñaan mooñe ko alxuraan soo noppee nag wëlbatiku Euh, jox ko doomu aadama bi te wàkkirlu ci sa borom moom moom mooy faj soo noppee incha allahu rabbi yàlla def résultat bu soobee yàlla. ndax doomu aadama yi euh, ñoo toll foo xam ni ndax nit ki li muy gis ci bëtam ñaari lu ci ëpp yi nga gis euh, ñu koy dawal ci tele yi di ko wane ci yenn sit internet yi xale yi di ko seetaan ba bu seen kanam yëkkati ko faw nu jéem a yëg seen bopp. am ñoo xam dañuy jël sa seen loxo di ko fobay seen kanam ba seen sàkkara ndox mi ci nekk di génn ndax xas na ba jug ba noppi su ko defee nag loolu day dem ba mu yàgg mu mu mu jubal ko mu jural ko ak néew kàttan am ñoo xam ne nag dem ba mu jural leen fal dootuñu mën dara far su ko defee nag loolu yëpp ku yooyu yëpp lu ci nekk am na ci yoo xam ne mën nañ cee jàppale doomu aadama ba nga xam ne ni dana yëgaat boppam na mu ko doon yëge su fekkee mànnuy bi tamit moo manqué pot bi nga gis nii dañ ko dañ cee dajale ay xeet yu bëree bëree bari def ci lem boole ci yu bari yoo xam nit ki mën na koo jëfandikoo ca du ca du weex ci moom du saf ci moom ba noppi mooñee ko alxuraanu karim su ko nit ki dee jëfandikoo day dana dolli kàttanam waaye it dana dolli it ndoxum man yu moom dana ko defar ba mu mel ni mu war a mel tey da koy gën a bari euh, su ko defee kon loolu it ñu ngi ci bàyyiloo xel mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ñëpp rek euh, képp koo xam ne dal na ko muy new kàttan faible sexuelle léegi muy dem di jëli ay doom yoo xam ne daf koy sonal waaye mu ñëw jël ci yoo xam ne dan plante garab lay nekk ba pare ñu jël ko boole ko mooñe ko alxuraan euh, boo ko jëfandikoo diir bu gàtt da ngay yëg sa bopp am ci yoo xam ne moom buñ la ko joxee moom euh, nga jëfandikoo subaa ngoon guddi jot nga euh, maq ci li nga ciy maq bu soobee yàlla da nga yëg sa bopp ni nga ko war a jege incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla lépp nag mi ngi amee ci kàttanu yàlla barke alquraanul karim waaw yooyu nag dafa bëri lu koy def moom ñaare dafa bëri lu koy def am na ci jigéen ñoo xam ne dañuy topp planning bi ba bu demee nag ban bàyyi ko diggante bi nga koy bàyyi xam nga dara jooju moom yàlla moo programme dafa war a génn dafa war a génn ci dat sàngam bu jotee dafa war a dat boobu bu nga ko ko ba génnu dafay takki sa yaram yi day dem ba may la yaram sax dangay dem ba mu yàgg boo demee ba bàyyi planète bi nag ci day tàmbali di génn noonu di génn am na ci boo xam ne nag moom rab moo koy def su ko defee lu ci nekk su ki ñëwee ba ci ñun waxoon naa la ci wa ci jamono bi ñu njëkkee ñëw fii am na matuwaay yoo xam ne suñ ne jàkk doomu aadama danaan xam lii ko dal lan moo ko waral su ko fee nag ci loolu la ñuy sukkandiku nag euh, jàppale ko ci ci kàttanu yàlla ndax bëri na ñun ci jàppale moom ci dara juy génn rek te arrêté moom ñaare moom moom soo ñëwee liñ lay jox liñ ci boole soo ko naanee rek dangay daal di yëg ni taxaw na arrêté na ni mu gën a kii te du la indi benn problème bu soobee yàlla. waaw lu ci ëpp nag tànk yu métti yooyu moom siti moo koy def ndigg lu métti ñaar dana ko def hémorroïde dana ko def siti dana ko def euh, moo ci ëpp doole moom ñoo ëpp doole boog siti ak hémorroïde ñaare bu nit ki ñëwee boo ko saafara la sitiam rek ay tànkam day daal di day di wér. am nañ ci sax yuñ njaq yuñ ciy togg ñoo xam ni tànk yu metti rek moom moo ko tax a jóg euh, nit ki bu ñëwee ba ban xam jàngoroom ba noppi danañ ko ci defaral loo xam ni su ko demee togg ko nin ko ko waxee su ko jëfandikoo ay tànkam dana saafaru bu soob yàlla maanaam daal euh, bépp feebar boo xam day dal doomu aadama su dikkee fii ci ñun suñ ko xoolee te man koo faj danañ ni ko mën nañ koo faj suñ ko mënta faj danañ ko yebal ci bërëb boo xam bu fa demee danañ ko faj te duñ ko teg benn coono boo xam ne nii dana metti ci moom euh, am na ci yoo xam ne tamit ci wàllu muslaa lay dox ay xeetu liggéey ak euh, wala lu mel ni euh, nit ku ñàkk bay rek fu mu dem kenn du ko faale tamit su dikkee am na ci xeeti saabu yoo xam ne suñ ko joxee su ko jëfandikoo rek dafay daal di yëg ni loolee ko daloon suñ boroom saafara na ko ci kattanam maanaam boo gisee ñu def ko nii def ko ay ay sase liggéey ko ba def ko ci ay sase sunguf bii nii suñ ko jëloon def ko ci butéel man na am nit ki du ko meuna denc ni ko wara denc waye bu fekkee dana def sunguf bi jël jox la euh, nga wut ben kuddu wut sa 1 litre ndox wala 1 litre 50 baxal ko bam bax nga jël ben kuddu def ci baye nonu bamu sedd nga nga segg ko def ko ci bouteille nan ko ci ben bis une journée soko nané ci journée bi bamu jeex bo xëyaatee defar banen bouteille fofu yàq fi du fi du fi manam ci digënté bobu li desit mooy saytu nañ ko ci wàllu composition maanaam yi war a ànd la ñuy boole ndax garab yi dañoo am contradiction loolu ñuy wax am na léeg nga dem ci bërëbu garab fekk garab mu sax ci bërëb fekk fa ay moroomi garabam yu sax ci wetam léeg-léeg dem ci bërëb fekk fa ay garab ne fa doo fa gis beneen garab yooyu mais garab yoo xam ne ànduñu am na garab yoo xam ne nag seeni mbir dafa ànd su ko defee dinañ ko boole nin ko war a boolee lañ ko boolee ba noppi moo ko alxuraan weer ko ci bërëb yoo xamee ni bërëb yu yu yu am sécurité la ba defar ko mu mel nii ngir képp koo xam ne jël na ko rek da ci amee njariñ waaye du lor incha allah yi ci kàttanu yàlla lor du ci am incha allah. ñu ne bitim réew te bëgg ay kayit te bëgg ko am képp kuñ ci jokkool ndax eh, ñi yóbbu ñaan yi ñi ngi fi su fekkee am nga boîte postale ci wax ko it ñu defal la ko ci nga jot ci waaye képp ko xam bëgg na ay kayit te nekk butim réew. ba mu bëgg liggéey ci liggéey jafe ko fa loolu wala sax fii ci réew mi suñu ko waxee danañ ko ci jàppale incha allah rabbi ci kàttanu yàlla danañ ko ci ñaanal yàlla jàppale ko ci incha allah rabbi li ñu waxoon léegi ci alquran ji moom mooy suñu lépp ci la ñuy def lépp lu ñuy def garab yi sax suñ ko wutee ba noppi alquran lañ koy mooñee parfum yi sax am na ci parfum yoo xam ne ni dañ ci jàng ay taxsin ay taxsinaat di ci di ci jàng alxuraan di ko ci tifli ba nga xam ni doon nit ki dafay dafay daanu ay rab sax soo ko laalalee mën a daal di deñ ma maa bàyyi ci changé loolu lépp ngir rek gën a jege askan wi gën leen a jàppale ci seeni bëgg-bëgg moo waral gëstu bu metti bi léegi rek maa am na ku ma ci waxtaanal ni ko ñun li nu ëppal doole ci nit ki ñëw ci ñun du caa gën lim ñuy jox waaye aaju ju mu fi indi saafara moom moo nu gënal lu mu mën di doon Euh, yërmande jooju moom dañ koo njëkk laytaay ba noppee lu ñuy def ñu doog koo def su fekkoon ne mën naa ko nga xam ni damay wax ne rek ku ñëw rek ma defal la li nga bëgg nga dem dinaa ko def waaye euh, coono yi ñuy daj ci garab yi ak di ko wuti ak ñin koy wutloo ji ñu wuti ko ak mbind mi ak coono biñ ciy daj loolu rek moo ko waral waaye bu du woon loolu ku ñëw dama lay jox li nga bëgg faj la ba nga wér su ma la manee fay sax fay sax fay la ndax xam nañ njariñ li ci nekk waaw képp koo xam ni bëgg naa jokkoo ak ñun mën nanoo woo ci 77 532 94 22 wala mu wooñ ci 76 532 94 22 numéro yooyu tamit ñoom ñaar ñëpp am nañ ay whatsapp képp koo xam ni rek jokkoo na ci ñun ci danañ jot bu soob yàlla bu dee fii ci réew mi nag bu nu wooyee ba noppee bu dikkee fii ci tëlimaam jaara euh, ci fii kalaandu yi taxaw ci marché bu ndaw bi rek su wootee dana am ko dem jëli indi ko fii ñu nekk suñu ci su bërëb bi ñu nekk incha allah rabbi dana fekke tamit ñu ko man a teeru teral ko jàppale ko ci lim mu bëgg ci saafara jàngoroom incha allah rabbi yàlla yàlla defal ñu tawfeex ak jàmm defal nu mujj gu rafet euh, bàyyi noog suñu diine ban man ban man koo jaamu ni mu ko bëggee barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam barke man xam ñu tàggatoog ñëpp rek di ñaanal ñëpp jàmm di leen wax wa salaam